أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki seetaan hadis di jour dellu siwaat nañu di àndaat ak ci beneen jataay ci hadis di jour hadisu tey bi di wax ci seede lu dul dëgg témoin témoin dafa am solo lool ci lislaam seede ndax xam ngeen ne mënuñoo def àtte àtte ba jaar yoon lu dul soxla nañu ay témoin ci tëralinu lislaam ba ci sax tëralinu sunu constitution yii dañuy soxla li nga xam ne moom mooy témoin ca bërëb ba ñuy àtte moo xam ca police ba la danañ fa soxlay témoin rawatina bu nu demee ba tribunal danañ fa soxla la nga xam ne mooy témoin léegi nag ki nga xam ne mooy témoin dafa war a nekk ku dëgg la muy seede nekk dëgg bañ a seede lu dul dëgg ndax seede lu dul dëgg mi ngi bokk ci bàkkaar yi gën a mag ci bàkkaar yi xadis bi boo demee ci saxiixul buxaari mi ngi ko fay indi baabu ma qiila fi shahadati duur li ñu wax indi ko ci ay xadis ci seede lu dul dëgg hadis 2654 2654 Buxaari nettali ñi ko nettali ba yegg ci Abdurahman ibnu abi bakrata mu jëlee ci baayam radiallahu anhu mu ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa toog saxaaba yi bis ne leen ndax duma leen wax bàkkaar yi gën a rëy ci bàkkaar yi ala unabbiukum bi akbaril kabair qaalu balaa ya rasulallah ñu ne ko aha kay yow ki yàlla yónni bëgg nañoo xam bàkkaar bi gën a ci bàkkaar ndax ñu mën koo wattandiku déglul bu baax ndax ñu mën koo wattandiku bàkkaar yi gën a rëy ci bàkkaar yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ci njëkk mooy bokkaale ak yàlla bokkaale ak yàlla yàlla bind la yeyoo moom dong nga jaamu ko bañ cee rax bañ cee dugal kenn nga ne ko yàlla doyoo bokkaale mooy yàlla doyoo damay uti ku la jàppale ci lii nga xam ne yow dong yaa ko yeyoo yow dong yaa ko jagoo damay uti keneen ku ma ci boole ndax du yow rek a ko jagoo looloo tax bokkaale doy waar yàlla na ganiyun anil alamin soxlaalul kenn lenn dafa mat sëkk moom sunu borom léegi nag nga ñëw ne ko yàlla doyoo bu may ut ndimbal danaa ko ut ci yow ak keneen ku dul yow yàlla diw waaw yàlla ak diw yàlla jàpp ci diw sàngam tamit jàpp ci yenent bi nee ci bàkkaar yi gën a màgg ci bàkkaar yi la bokk moom bokkaale ñaareel bi mooy dënge ñaari way jur ñàkk fonk sa yaay ñàkk fonk sa baay doyadal sa yaay doyadal sa baay faale woo sa yaay faale woo sa baay toppatoo woo sa yaay toppatoo woo sa baay mi ngi bokk ci bàkkaar yi gën a rëy ci bàkkaar moom it tasaaroo na léegi waaw na léegi way jur yi ngi jooy te dooma leen di jooyloo dooma waroon a fe fekk yaay ak baay ñuy jooy mu fompal leen seeni ronkoñ waaye léegi doom mooy jooyloo yaay di jooyloo baay ci metital ko ci naqaral ko ci ñàkk ko déggal waaw ba mu jeex loolu ci bàkkaar yi gën a rëy ci bàkkaar yi la bokk waaw yonent bi bi muy wax loolu dafa fekk mi ngi jël loxoom def ko nii loxoom bi la samp nii tëdd waaye bi muy bëgg a wax ñetteelu bàkkaar bi ci bàkkaar yu mag yi dafa jóg toog ne leen ala wa qawlu zuur ne maa ngi leen di seedeloo ngeen xam ne wax lu dul dëgg ak seede lu dul dëgg moom tamit mi ngi bokk ci bàkkaar yi nga xam ne nii ci bakkaar yi gën a mag la bokk yenent bi daf koy baamtu di ko baamtu di ko baamtu ba ñu naan aka neexoon nag mu doy mu noppi wax lu dul dëgg ak seede lu dul dëgg waaw fama zaala yukarriruha xata qulna laytahu sakata dañul di ko wax ba ñun ñëpp ñu naan aka neexoon aka neexoon aka neexoon mu noppi mbokk yi témoin lu am solo la te lu ñuy foye la léegi ci sunu société ndax mbir bu xewee rek ñaare li njëkka de mooy ñu ko fekkee ak kana ko fekkee waaw daf maa lebal xaalis kaay nga seede ne lebal na ma xaalis bis jot yow ma seede woon boo ne lebalu ko après yow yaay témoin bi weddi nga ko dafa am lu ñu wax ne diwa ko def yow yaa xam ndax diwa ko defoom deful ndax yow yaa fekkee ñu woola la comme témoin am fu ñu jaar ak yow nger la wala ñu xupp la xupp xupp la wala nu xëpp la ñaareel ñaar yooyu lañuy def xupp wala xëpp ñu xupp la nga ragal seede woo dëgg wala ñu xëpp la nga ragal seede woo dëgg lu ci nekk mbokk yi bàkkaar bu rëy rëy la te xoolal sunu borom mi ngi wax ci alquran di tagg ibaadu rahman naan walladina laa yadha laa duur ñi nga xam ne du ñu seede mukk dul dëgg ñi nga xam ne du ñu seede mukk lu dul dëgg yàlla di leen tagg ngir seen jikko yu kawe yu ko kon témoin lu am solo la lu waay di seede na doon dëgg lii moo doon xadisu tey bi di leen jaajëfal ci seetaan bi ba léegi ak jàmm ci beneen xadis wasalaam